Salam alaikum, ak xarit ñuy euh, di Setsima.com, euh, troisième numéro une émission que ko euh, di une émission ou séduction nous sommes nak fi marché HLM Nous nak ci place ou koo nak ne Euh, mbirum tatouage lay def tey nag suñu thème mbirum tatouage la euh, lu waral nag xale yu jigéen ñi jël li nga xamante ni nag moo di euh, fuddan bi di def tatouage ma fàttali leen ci marché HLM la ñu nekk dañuy yéeg nag dem seeti place su fàllu tatouage parce que moom nag bokk na ci ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci tatouage bi te dañ koy defar nag ba mu baax maanaam yu chon wa chon rek la kii di fàllu tatouage di defar. gëmal sa bopp gëm li nga doon doon lu bare nga am lu bare nga mën mënuloo noppi ni immense is your wealth tatouage bi de xanaa fas dem gàmmu rek Richard tol bëgg rek buma ma rek ñepp kontaan Allah alaaji bi bégaale ci allah ñepp bég

vraiment je dis que euh, quelque chose euh, quelque chose de quelque chose de un rituel un rituel de beauté traditionnel musulman jullit même bu nous ne ñu sax ko bëgg def parce que lu rafet la day ambali say loxo nga def ko soit sa wala nga soit sa bu fekké même ko am la sax condition sa euh, yow présenté ci place ba ci kanam ñepp ñu dess ne la sa ndig nga tok wone ginaaw ñu dess ne la sa ndig xama nga ci jëkkër euh, soxna si na nga def ma ngi fi ñu ngi la fekk fii euh, ci place su Fallou tatouage yow fan nga jugee. maa ngi jugee Gueule Tapée. lan Gueule Tapée nga juge ba fii foofu sori na de lépp rek pour ñëw def tatouage. waa gis nga waaye soriwul ci man ah. soriwul ci yow. waa dama ñëw rek pour def ko nii xam nga pour am nee na nu ma mel moo waral pour man soriwul ci man ah. kon yaakaar nga ne am soo defee tatouage di nga am neneen neneen nooy mel daal. waaw lenn luy yokkuwaat la ci man daal. pour bëgg rek ku amul jëkkër. boo gisee nit mu bëgg la ah am jëkkër ak yëpp yooyu yoo ko waral base bi mooy lii. est-ce que yow yàgg nga fi euh, ñëw def tatouage. c'est la première fois dañ ma ko teg taal man kii laa doon def pose ongle. yow ban façon tatouage nga fas yéene def ak kañ nga commencé def tatouage est yàgg na. non yàggul mais dama doon gis nit ñi di ko def mu nekk lu rafet waaw ma un jour ma doon ma gis sama benn copine def ko xam moom dafa marié mu def ko nee na pour jëkkëram. affaire bi rafet ci moom. moom dafa marié def ko pour jëkkëram mais yow est-ce que marié nga. non man marié wu ma. léegi yow da ko def pour sa copain pour mu bëgg ci yow. non dama koy def pour sam bopp man. tatouage yu ñuy waxtaanee am na suñu envoyés spéciaux yu nekk fële ci Espagne ñoom i tamit euh, demaloon nañu fenn ci biir Espagne nga xamante ne ñoom tamit dañuy yëngu ci wàllu euh, tatouage ngeen seetaan élément boobu. wake up send up Africa gëmal sa bopp gëm ni nga doon doon lu bare nga am lu bare nga mën mënuloo noppee nii. your wealth Mënuloo noppe your wealth Immentimate are your dreams Seteri istuwa mënula leen say way ak say fecc teranga say doom mënula leen Immense, immense is your wealth Immense, immense how you stand up Africa gëmal gëm nga doon lu bare nga am lu bare nga mën mënuloo noppe mi imagine imagine is your wealth imagine how you live li gën a naay sa jigéen ci la quoi parce que aar la te aussi am surtout yenn temps yi am na ci yoo xam ne nii boo ci defaree comprendre day gën a nice day gën a nice rafet trop. am na benn euh, album bu ma gis fële mais gis naa ay euh, ay euh, tubaab ak ay góor tamit góor ñi tam dañuy def tatouage. waa góor ñi dañuy def tatouage waaw dañuy def tatouage bu baax. mais tatouage ci jigéen la fekkee baax wala. waaw mais mais góor mën les def jigen man naka def ah, parce que en généralement ñom ñep dañuy ñew fi diko def. wa dafa ñoo dañ bëgg rek bëgg def parce que fu nek la def tatouage bi des fois dafa ñoo dañuy def badi do am ñoo ki def ay loxo def mais mën naa def parce que j'en ai envie mën nga ko def parce que lu nekk sa passion moom moom ngay def pour mu pour nga am ci plaisir. yow la bokkoo si xale yu yi Euh, séduire góor moom lañ ci jublu daal moo tax ñu koy def. nit mën nga def lu nekk ba peut-être boo ci jubloo séduire da nga koy séduire boo euh, sa objectif moom boo jugee ne lii laa jóg pour pour viser ko danga koy obtenir pour man. jigéen moom dina dina góor dina toll fenn ci moom fa nga xamante ni nu mu day jéem a xool nu mu def ba neexal ko ba neexal àndam wala xama digganteem ak ki muy àndal daal. yow am nga soxna. man franchement aw ma soxna. amoo soxna waaye tey jii euh, waaye amoo soxna waaye am nga benn kii bu ndaw wala boobu. ah mais jamono ji moo laaj am naa benn kii bu ndaw. mais tey nag euh, sa kii boobu noonu maanaam soxna soo su fekkoon benn jour dafa ñëw rek am pour defal la ndax dañ ci dig ci bëgg. waaw naa ci bëgg ci bëgg. my Wake up, stand up, Africa. Gamun sa bapa, gamun nga doan doan. Lu am, lu man, manulo no pemi. Immense, immense your wealth. <laughs> maa def euh, bon à fait dama de parce que c'est coquet c'est joli euh, je vois que toutes les femmes sénégalaises le font bon c'est de l'aîné donc euh, je le fais pour c'est pour c'est pour faire beau euh, tu le fais pour séduire ou Ah oui, bien sûr. <laughs> pour séduire mon mari, bien sûr. <laughs> Mais Est-ce que maintenant ou Je peux dire que maintenant parce que nous savons actuellement dañuy euh, wër sont pas des professionnels Nous, des fois euh, nous nous di xaw nous, parce que nous avons dugg des kër nous def affaire c'est différent par rapport à ce que nous avons bu ko day am day nek lo xamné bokul ak ñun ñi liggéey ñi liggéey ci ñi wër ci kër yi di def liggéey xamné defal la bon même pas benn jour wala deux jours mu dañ bon sont pas sont pas des professionnels parce que sen métier du sen liggéey jangu ko man c'est un métier que j'ai appris xam ma ñew jangal ko ñi wa xam ndax na ni koy defaree li ma la ci defaree day nek lo xamné luma xam la aussi luma lan dina la durer bek lepp mais nek lo xamné pour defal ko pour benn fan wala nga sangu mu dañ am na ci ño xamné ne da ngay wër ci mbéddi funek, wala ñu tok ci mbéddi fu nek mais ñun ci cantine lañ nek fii HLM centre commercial bi lañ ci cantine. waaw euh, xale bu jigéen bu ko def. pour euh, séduire daal. Euh, jëmale ci séduction donc moom ñaata ton le aîné bi maanaam fuddeen bi mën def té du daj. mën def ça après mën def deux semaines mën def trois semaines ba un mois 15 jours maximum dire maximum dire maximum lool la un mois 15 jours. waaw sama amoré mooy wara ma def tatouage bi nag. kon sa amoré mi yo mo waral li yëpp. moko ko waral. kon yakar nga ne sa ce ce copain so défé tatouage daf lay gëna bëgg. waaw bon bokk na ci sama pour ma daal samay feem la bokk daal bokk na samay feem. waaye yow ban endroit nga fas yéene tatoué pour sa copain bi. moo mën naa tatoué sama loxo rek. xam nga caméra bi nga gis sànq ma la dégg ngay wax waxu diggu gannaaw wax ci waxal wax bi boog. sama loxo laay sama loxo laa nar sa loxo rek moom maanaam sa copain bi soo defee si sa loxo bi rek moom bég na. na bég. bëgg na su ma defee sama loxo rek day bëgg ma daal di ci def benn initialam rek xam nga. yow yan matériel ngay utiliser pour def euh, kii bi. c'est un stylo on met le henné dedans fuddeen la ñuy jël men def ménage bi jël big bi ubbi ko euh, amut leneen y a y a pas un produit toxique parce que dafa am produit yoo xam ne soo ko defee ci yaram nit mën na indi bon allergie di am ay picc ak yooyu. pas c'est pas un produit toxique da nga koy fekk c'est du henné ñu jël affaire bi mélanger ko def ko si biir bi di ko dessiné jeex na. again. I think I leave again. Stop smile again. I think a dream again. Euh, kon suñu xarit ñu doon seetaan ci setsima point com si seen émission noo ko bëggee nii rek la maanaam lépp loo xamante ne rek jigéen daf koy def pour séduire moo xam borom këram la moo xam copain rek dañ leen koy euh, defal ci émission noo ko bëggee ma fàttali leen mbirum tatouage lañ doon def gis ngeen xale jigéen yu chon yi nga xamante ne defar nañ ko ñenn ñi tatoué euh, tatoué nañ seen loxo ñeneen ñi tatoué nañ seen ndigg ñi ci des tatoué nañ seen seen gannaaw Euh, lépp rek euh, pour wane ne daal euh, jigéen lépp lu mu yaakaar ne rek su ko defee dana neex borom këram wala copain rek da koy def ma di leen jox di daje ci beneen numéro noo ko bëggee ma leen di wax jàmm ak jàmm ciao.